commission électorale national autonom sénat daal di ne am njiit lu yees ki ko jiite woon di duudu Ndir nekkatul njiit la li ko xamle nag moo di ab décret boo xam ne njiitu réew mi Macky Sall daal di na koy jël niki aljuma ji yem ñetti fan ci weeru novembre 2023 ñu ngi cay xamle ca décret ba nag njiitu réew mi Macky Sall moo di ne jël na dogal dakkal liggéeyu ki nga xam ne moo di Doudou Ndir mi jiite woon sénat di kuréel gi nga xam ne moom la ñu dénk muy saytu lu jëm ci wàllum élection yi Doudou Ndir ak ñamu mu àndaloon ñëpp kon njiitu réew mi Macky Sall daal di nay dakkal seen liggéey fal ñoo xamante ni nag ñooy ñu bees ñu war a liggéey bi ku ci mel ni nag Abdoulaye Sylla nekkoon inspecteur général d'État ci jamono ji mu nekk ci retraite ak Ndari Touré mi nga xam ne magistrat la te jamono ji itamit mu ngi woon ci retraite ñi nga xam ne nag di Doudou Ndir ak ñamu àndoloon ñoom nag daal di nañu leen di dàq mbir mi ñu mel nag am ci gannaaw boo xamante ni kon moo di fan yile rek déggoon ngeen ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Sénat doon sàkku ci DGE ne nañu jox a pour waajal ak bokkam ci élection yi li ñu mel nag tax na nag ñëpp kon daal di sampap laaj ci jamono ji nga xam ne ñeenti weer dong moo dox suñu digganteeg li nga xamante ni kon moom moo di élection présidentielle yi ñu daal di dàq ñi nga xam ne ñoo yoroon Sénat ba noppi kon daal di tabb ñu bees tàq